Euh, dañu daje woon tey jii ci waajtaayu congrès national boo xam ne nii mouvement des arabophones du Sénégal ñoo ngi koy waaj ngir def ko. Euh, ñoo ngi ko jàpp le 29 le 30 décembre bii di ñëw incha allah. Euh, ci cadre waajtaay woowu nag amoon na ay daje yu bëri yoo xam ne ni weesu woon na am na ay daje yu ñëwaat ngir ñu laltaayal daje bu mag boobu nga xam ne tous les arabophones du Sénégal incha allah fas nañ ci yéene bokk. ngir waxtaane aveniru arabophone yu Sénégal. Eh, ginnaaw aje yooyu nga xam ne ñoo ngi koy def ngir laltaayal congrès bu mag boobu nga xam ne ñoo ngi koy waajal eh, tey jii daje woon nañ fii bokk na ci ay tomb yoo xamee ne nii waxtaane woon nañ ko bëgg koo fésal gouvernement di Sénégal jot ci sénégalais yépp jot ci ngir gën a jox yitte ñooñu nga xam ne dañ leen di tuddee arabophone di Sénégal wala arabisants yi comme ñi ko ñenn ñuy waxee. bokk na ci tomb yooyu nga xam ne bëggoon nañ koo fésal mu àgg ci noppi ñépp eh, ouvrir département arabe maanaam ubbi. ay département arabe yoo xamee ne nii dañ koy ubbi ci université publique yépp comme ni mu amee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar loolu nag à défaut d'avoir une université arabo-islamique ndax université arabo-islamique fii ci Sénégal ak wàccuwaay bi fi dina am dafa nekkoon doléance bu yàgg a yàgg bokkoon na ci promesse de campagne son excellence président de la république Macky Sall ouvrir une université arabo-islamique ci lool nag la ñu gis ne comme xaj na ba léegi loolu sotteegul jot na kon ci université publique yi nekk Sénégal yépp ñu ubbi fa ay département d'arabe comme ni ko université Cheikh Anta Diop amee ngir euh, maanaam yéen bi nga xam ne teg nañ ko université Cheikh Anta bu Dakar ndax lu ëpp ñetti junney bachelier daanaka chaque année rek dañ leen fay jiima dugal te mu nekk loo xam ne ni dem na ba mënatut a nekk. ci loolu daal ñoo ngi sàkk koon université publique yi ci senegal yépp ñu ubbi fa ay département d'arabe ngir euh, gën a yaatal yëf yi ngir gën a euh, améliorer conditions yi nga xam ne ñooy jàng danañ ci nekk ak iniversité euh, bi nga xam ne moo leen doon accueillir tamit maanaam jafe yu bari ñu teggal ko ko ñoo ngi sàkku tamit université virtuelle du sénégal cheikh hamidou kan ñu ubbil ko yi ndax ba tey jii ñuy wax ak yéen formation ya fa nekk bari na lool mais njàngum arabu islamique amagu fa kon ñoo ngi sàkku ñu boole ko ca yooyee ah, ni ko noonu it ñoo ngi sàkku ah, ñu ubbil yi wala les diplômés en langue arabe ay projet yoo xamee ne nii danañ leen ca mën a ci wàllu ci wàllu sàmm ci yeneen ak yeneen ak yeneen institution de financement yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak de insertion yi nekk ci réew mi it lu mel ni DER 3FPT euh, ANPEJ ak ñi mel ni yooyu yépp daal institution yépp daal ñoo ngi ñaan ñu ubbil ko arabophone yi ndax li ñu fi wax sànq ne ab lim bu bëri ci ñi nga xam ni ñoo diplômé wala ñooy jàng arab euh, faatu nañ ci ci géej gi mu mel ne loolu buñ leen ko ubbiloon bu ñu amee ci lu ñu jàpp daal loolu ñuy tuddee mbëkk mi phénomène boobu dina wàññeeku bu baax a baax kon daal ci cadre boobu ngir phénomène mbëkk moomu gën a wàññeeku ñoo ngi sàkku lépp loo xam ne ni institution financière la wala un euh, insertion rek ñu ubbil ko arabophone yi ngir aywa utal leen benn programme spécial boo xamee ne ni ñoom ñoom rek ñoo koy tax a jóg bu ko defee loolu dina yombal seen insertion dina yombal encore ñu mën a am seen wàll ci financement yi nga xam ne ñu ko yëkkati di ko jëmale ci ndaw ñi ak jigéen ñi. Euh, bokk na ci li nga xamee ne nii tamit euh, waxtaane nañ ko fii mooy gouvernement wu Sénégal ak képp ku di sénégalais li nga xam ne mooy xew diggante Palestine ak Israël ñu taxawaat ci taxawaat bu gën a ëpp solo ngir li nga xamee ne nii kat. ma ngay xew fee ca Palestine am xel mu rafet nungu ko képp kuy xel mu rafet rek même bu dul wàllu arabe ak islaam ak yooyu humanité daf ko ñaawlu mu mel ni nag communauté internationale seetaan bi yàgg na li ñuy wax deux poids deux mesures dafa mel ni moom la ñu seetlu ci cas bii waaye daal jot na sëkk jot na sëkk réew yeeg waaw léegi mu mel ni kon jot na sëkk. kon communauté internationale gouvernement bu Sénégal kenn ku ca nekk la nekkoon sa taxawaay ci question boobu ñu taxaw ngir ñu am une solution définitive. Euh, xañ na nag beneen tomb bi nga xamee ne nii am na solo lool mooy président de la république dafa amoon ay tomb yoo xam ne nii dans le cadre de modernisation des daara lu tolloog fukki tomb ak ñeent yoo xam ne nii proposé woon na ko ngir modernisation des daara. kon tomb yooyu. ñoo ngi koy ñaan ñu yóbbu ko assemblée nationale ngir ñu voté ko mu doon loi boo xam ne nii moom mi nga xam ne nii moo ko initié bu fi jógee dafay nekk ak yi boo xam ne nii daara yi am nañ ko ba pare keneen du ca mën a deltu ginnaaw kon daal cib tënk daal ñoo ngi woo képp koo xam ne ni arabophone la ndaje moomu nga xam ne ñoo ngi koy waajal le 29 le 30 décembre nga ñëw ci fekke ko ngir ñu gën a waxtaanee li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo. ah di dellu si nag képp koo xam ne nii rek da ngaa yor ndomb tànk ci réew mi wala da ngaa am benn pouvoir nga gën a bàyyi xel arabophone yi kat ñu xam ne dañoo nekk benn par à part entière ci biir réew mi doonuñu ay citoyen de deuxième degré kon nag loolu ñoo ngi ciy œuvrer. seeni compétence ci domaine yépp feeñal na ko kon jot nañu jël seen wàll ci réew mi place bu ca nekk ab arabophone war koo occupé nañ ko ko jox. tudd nañ fi sax ci wàllu wax ak yeneen yu ñu mel ñoo ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo yor dogal bi suñ ko deeti jox ñu jox ko ña ko gën a xam ña ko gën a xam. kon daal ci tënk loolu mooy tomb yi nga xam ne génnoon na ci ndajeem tey mii ñu noon nañ ko fesal ñëpp jot ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.